xam ngeen lu xew. Sonko men mi nga xam ne moo yëngal di gësëm. yëngalaat na di gësëm beneen yëngal gësëm bu gën a yëngu ah. yëngal gësëm ba. laay laay seeti Sonko am na lu mu yëkkati ay kàddu teg ko ci kaw ñi nga xam ne ñooy taxaw di wax yenn wax yi moom nee na du faale du tontu ñu seeti Sonko. déggal loolu. way déggal loolu kaay. Colly. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan naa kontaan naa trop ci dajale leen yéen ñëpp pour yeewi xel yi nga xam ne dañ koy yeewoon. Euh, président Macky Sall. na xam ne moom lay jàkkaarloo. ñiy wax ñëpp ci ginnaawam. ak ñiy fëgg ak ñi may sosal ak ñi may jéem a dugal ci loo xam ne dugguma ci ñu ñëpp man du maag ñoom dama ne ñoom ñoo ñu jàngal ndax li tax ñu jàngal ñu du dugaluñ ci ay école nañu jàngaleen li ñuy doxalee ñoom ci lañuy xool pour moytu seen doxalin ut beneen doxalin bu bees moom la sénégalais yi bëgg dama ne la jeunesse sénégalaise xam nañu bu tàng ak bu sedd xam nañu lu jub ak lu dëng dama ne ku gis weñ bu jub xam ne weñ bu jub la ku gis xam weñ bu dëng xam ne weñ bu dëng dama ne ñoom nañu jàpp ne li Sénégalais yi bëgg te ñu nekk ci ñu fekk ñu ci loolu mooy am on va changer le Sénégal problème pétrole bi Macky Sall bañ ñuy waxtaan mais dañ ciy wax parce que dañ ci xam lu leer moo tax ñu ciy wax bu bañee ku ci wax nañu woo débat face à face ñu jàkkaarloog moom. ñun soxlawuñu ministre bi nga xam ne mooy yor pétrole bi. mais nañu jàkkarlook moom mu ne lii la ñu ne ko du lii lii la mu ne lii la ñu ne lii la ñu ut consensus ba waxtaan ci li li nga xam ne mooy soxla réew mi. eh dama ne. ñun bokk ci ñi nga xam ne dañuy arrêté ah. ay xale nañu. ay xale ñu toog ay mag ñuy déglu. ay mag ñuy ñaanal. ñi ñuy waxal dofuñu dina jàpp leen. Sénégal ci boppam dootuñu ko bàyyeek ak loxo yu salte xamalu tax parce que ñun si boppam jublu ak jubal yeete ak yeewu moo ñu tax a jóg pour mën a indi Sénégal boo xam ne dafay taxaw temm jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy ay nawlay eh dama ne li am ah. mooy fexe leen retirer seen carte électeur dëggal loolu jàpp ne lii ñu dem ci kanam ah. du ay tiital du ay xoqatal kenn ku nekk li nekk sa xel yaa ko xam dama ne bind ci parrainage yi te pare woo pour voter ki nga pare ne loolu yàlla rek moo xam waaye ñun am nañu temb tembaaral bu wóor ne ah. avec cette jeunesse révolutionnaire bi taxaw tem pour changer li nga xam ne moo fi nekk dama ne ak Sonko ak la jeunesse de l'opposition on va abriter la palais de kon yéen a ko wax man waxuma ko am na loo xam ne pour ñu jëfee ko pour ngeen xam ko ah. mooy dañuy tënku ñu ñëpp ci benn say bañ a ragal ki may waxal xam na boppam man je parle avec le président Macky Sall ñi nga xam ne ñu nekk ci ginnaaw Macky Sall di wax du maag ñoom parce que ñoom du ñu ay candidat ah. candidat candidat lay waxal candidat candidat lay jëfantal candidat candidat lay jëfantal te danaa jëfantal moom ba mu saf sàpp xam ne réew mi kenn du ko bàyyi ci ay loxo kon bi may dugg si li ngeen ma wayal ba nga xam ne man xam sama cosaan dellu leen foofu ñu xam ne man maay kan maay